chers amis internautes euh, nous sommes leen Nous ngi euh, fii nga euh, fédération de boxe de sargal Nous avons les médaille d'Afrique en tout cas toute la délégation qui revient de la RDC République démocratique du Congo nous fa doon amal li 21e édition championnat d'Afrique de boxe élite alors nous ngi ak Awa Cheikh Mbaye catégorie 110 kg. kg. kilos bi gagné li nga médaille d'argent Nous sommes Sénégal mi ngi de médaille d'argent ans ci jigéen mu daal di koy jël Awa Cheikh tey da benn record yow yaay jigéen bi njëkk a jël médaille d'argent ci compétition majeure bu boxe euh, nan nga dundee woon euh, mbir moomu foofu ca Kinshasa. waaw contentement rek laa ko dundee bon certes bëggoon nañoo am médaille d'or pour gën a yéegal niveau bi mais bi ko yàlla noonu la ko bëggee woon genre dañ koy sante yàlla rek xam ni beneen yoon mooy dàkk incha allah. yow bi ngay dem ndax bokkoon na seen njortu nga jël médaille nan nga ko doon waajalee est-ce que yaa ngi ci doon xalaatu lii. non man moom or rek moo nekkoon sama xel mi or kase même coach yi duñu waxee sax dama naan leen or laay am incha allah mais jaam ak pexeem yàlla yàlla ak dogalam. alors Awa Cheikh bëggoon naa la laaj euh, tey jii ni yow kañ nga commencé def boxe lan moo la dugal ci boxe. ba 2019 laa commencé box sama sama commencé box nag c'est venu naturellement nekkuloo loo xamante ne dañ ma ko forcé wala dara man maa toog ni xaw sax luy box am bi dem box après dajeeg sama benn xarit bu ñuy wax Amadou Diallo bu yóbbu saal ma commencé box depuis lors arrêté wu ma depuis 2019 ba léegi maa ngi box. mu nekk benn discipline sportive boo xamante ci góor yi lañ koy gën a gis ci jigéen ñi d'ailleurs boo nee box rek dañ naan ah ku jigéen nan la dem. ba dem bokk ci loolu yow nan nga koy dundee en tant que femme yenn mbir yi nga xamante da koy dégg ñu koy wax ci femme boxeuse. chaque jour kay moom ma dégg bàyyil box parce que du yëpp jigéen doo am jëkkër genre affaire yooyu mais moom man gisuma lool je me sens daal si sport bu may def nii terewul ma def sama yenn activité yi te en plus sama yaay bàyyi na ma si sama papa suñu waa kër kenn critiqué ma si genre waa mbedd bi daal ñooy ëpp lu may ma benn opportunité boo xamante ni Euh, nit du ma gis ni ma yëpp daal parce que dañuy jéem di méfier wu ndax dañ naan kii boxeuse la wala doo ko tooñee dalee dóor affaire yooyu noonu. bi moo doon sa première compétition continentale. bi moo doon sa première compétition continentale. non non euh, dama doon def euh, savate pied point boxe française boobu moom nekk naa championne d'Afrique am naa si médaille d'or lu dul tamit participé woon naa si qualification olympique Dakar yi aussi. te médaille d'argent bi la représenté ban message ngay lancé ay jigéen yi xamante ne tey jii nii peut-être yaa ngi leen bi moom euh, source de motivation la pour man en xam naa dama koy teg di ko xool di xam ni beneen yoon incha allah damay war a indi or remplacé ko ak di wax sama mbokku jigéen ñi tamit ku si bëgg a box mun nga def box ndax euh, noobul aar la nit ñi ñoo koy gisee dara mais nekkul loo xamante ni danga gaañu parce que. am na ay coups yoo xamante ne dañ koy interdit nekkul coups yëpp lañ la permettre pour nga dóor ku bëgg boxe mun nga ñëw boxe te dina la permettre nga mën a protéger sa bopp ah.